asalaamaaleykum tey ñoo ngi fii si Ngumba fekkoon suñ benn kilifa bu mag muy kilifa Méné faaja ñu koy wax Cheikh Lamine Diouf ñu bëggoon am ay question yu ñu ko posé rek lan moo waral teewaayam fii si Ngumba tey ak digganteem euh, xalifa bi nga xam ne mooy Cheikh ay dara lan mooy seen relation ñoom ñaar loolu nañ bëggoon tey xalifa bi nga leeral ñu si tuuti tey wax ñu yow yaay kan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñu ngi leen di nuyu di leen di ziare di leen di ndokkeel di leen di baal ak di baal ak ñëpp di sant yàlla it bi nga xamante ne yàlla defal nañu sutura ba ñu mën a teew fii ci ngumbo ci ñeent fukki guddi Chérif Aya di xalif général Xaadiriya yàlla defal nañu sutura ba ñun ñii di wax de Cheikh Mouhamadou Lamine Diouf xalif bu Medina Fadial Madina nag euh, mu ngi cosaanoo ci Cheikh Boubacar Diouf Cheikh Boubacar juuf nag moom mooy ki nga xamante ne moo sànc Madina ci jamono yàgg nga xam ne moom ci première taalibe yu njëkk yu Cheikh Sadou ab ci la bokk xam naa ne fii ci ngumbo gi a ah, am na boo laajte shérif yu bari nag xam nañu waa kër Cheikh Boubacar Diouf moo tax na ñun itam Cheikh Aya mi nga xam ne moom la yàlla jox xilaafa bi ni ma ko joxe woon eh, ay magam cheikh Chidaat cheikh cheikh Maola Aynani cheikh na Tufaya ba cheikh Bunaan na ba mu si ci moom comme ñun nag ci kër yu mag yi la ñu bokk muy kër cheikh Boubacar ah ñu des fa ak suñuy njaboot des fa ak ak taalibe des fa ma des fa ak waa Mbang Fadial yëpp eh, bu ñu fi yàlla bàyyee ba yàlla jël jël ko mu jiitu li gën a rafet ci ñun mooy il faut ñu ñëw teew. ci bés bi nga xam ne ci lañ koy ñaanale yàlla nga xam ne mooy ñeent fukkeeli guddi euh, Cheikh Aya ndax dañu am worma suñu diggante ak ñoom worma bi mooy képp koo xamante ne xalifa nga ci waa Aliou Bayti waa kër Cheikh bi Abiy xayma bi dina ñëw dina Fadial amul benn at boo xamante ne xayma bi ñëwul dina Fadial lu dul euh, daaw jéeg nga xam ne euh, feebar bi ñëw na. te ñëw na ba Faajaar wala jàll si Madina at boobu dong la xayma bi ñëwul te ay doomam ñëw nañu muy turaat ak ñi mu àndaloon atam yendu nañ ci kër ga fanaan fi kon xalifa bi saa yu ñëwee nag dañ koy teral comme niñ koy teeroo comme ni ñuy teeroo ay xalifa yi nga xam ne ñoo fi jiitu kon ñun bu ñu ñëwee Nimsaat euh, dañu fa am ceer ndax saalihiina ñun ñoo koy garder man am na fukki at ak juróom-benn yoo xam ne may taxaw buntu saalihiina ak arkaana saalihina moom ma fa tegoon léegi samay doom ak samay rakk ñoom ñooy taxaw buntu saalihina ñëpp xam nañu leen ci loolu kon bu ñu demee itam Cheikh Aya nga xam ne ku baax ku mun a boot ku yaatu ku bugg jàmm kuy digle jàmm ku ñaanal nit ci boo eh, ci YouTube bi di nga fi gis li mu wax ci waa kër bu eh, Boubacar Diouf wax yu rey yu mag la ci wax yoo xam ne yi wax de yàlla neew na xalifa di ko wax looloo tax ñun ñi tey ma ànd ak samay njaboot ànd ak samay eh, ñëpp samay rakk samay taalibe eh, am na ñoo xam ne sax ak seeguñu eh, ñu ngi ci yoon ñu ñëw jiitu si puis pour mun a gis ñi nga xam ne ñooy njabootam comme Abdou Aziz ak ay rakkam ak surafa yi nga xam ne ñoom ñoo bokk mbir mi ñi ki Cheikh Chidil Khayri ñi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñi ma tuddul sax nga xam ne ay kilifa lañu ñoo xam ne ñu ngi ci fii tey ci ngumbo war a teewe ñaan gi nga xam ne moom la ñu war a ñaan suba bu a yàlla dogalee muy alquran gi ñu war a jàng nga xam ne moom moom doo ci am solo nag moom la ñu bugg a def moo tax ñun itam si xam nañ ne suba incha allah dafay xat moo tax tey daal ñu jiitu si ñëw fii ci Ngouba ñu daje yëg waa Xaadiriya euh, TV eh, ñu ñëw pour ñu wax ci ay kadd yu gàtt kon loolu daal mooy ci gàttalagum loolu la ñu am daal li ñu am lu ñu war a wax ndax Cheikh Aya day wax di yàlla ku baax la borom baax la lu baax lay wax moom lay digle moom la bugg moom lay def kon bu ko yàlla jëlee eh, ñu teg ci ay fan yu neew waa këram it yàlla def coobarim ci moom loolu yëpp ñu boole ko war a ñëw fii dajeeg ay ay ay njobootam dajeeg surafa yi ku jaale leen ñaanal leen ñaanal ki nga xam ne moo fi ñaanal Sénégal ngumbo bi nag dëkk bu yiiw la ndax dégg nañu ngumbo yàlla dafa ate ñun ñii nag dañ fii door a ñëw nag wax dëgg yàlla dañuy romb rek dem ñim saat mais ngumbo daal kër dëkk Cheikh Saadu Abi ndax siri surafa yu bari ñu ngi fii ci biir ngumbo xaali euh, taaliba yu bari ñu ngi fii ci biir ngumbo kon loolu ngumbo dekk bu yiiw la dëkk bu barke la dëkk Cheikh Saadu bi la kon ñu ñaan yàlla daal lépp luñ fi ñaan suba yal nañu ko yàlla nangul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuy ñaanal itam yal na leen yàlla jégal te xara leen ajjana ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Al Mokhtar TV moom it ci liggéey bi la bokk eh, Al Mokhtar de mooy ku ñu tànn buñ ko tànnee nag boole ko ak TV xaadir yaa TV dafa am solo te xam nga xaadir mooy ndey eh, tariqa yi ndax si Abou Khadi Jeylaan moo ko wax ana Abou Khadi Jeylaan seexu kullu tariqati man maay si Abou Khadi Jeylaan nga xam ne képp ku am tariqa ci man nga jaar door a am sa tariqa ndax tariqa xaadir yaa moo fi jiitu kon ah, Mokhtar TV itam ñu ngi koy boole ci mbir mi. et Adja Bintu ñuy sant yàlla di la sant ndax lii yëpp sa sabab la ak sa lépp. ñu ngi lay ñaanal yàlla yooyu itam yàlla bàyyi la ci kanam njaboot gi yàlla barkeel liggéey gi barkeel seen liggéey bi yéen yëpp kenn ku ci ne na am liggéey goo xam ne bu bu kawee sa njort la ah, lépp lu ngeen fi liggéey itam yal na ko yàlla barke dara jëriñ tamit am nañu yaakaar dina barke asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw